xel màcc na ci wàllu woowu ñu leeralaat un peu ñi nga xamante ne ñoo di askanu Sénégal concernant Abdoulaye li nga xamante ne moo di protocole bi ñu gis dafa am ay ministères souverains yoo xamante ne ñoom ñoo koy gunge à chaque fois boo fekkee ne le président dafay génne et bii nekk gulet ñu gis ko ci ci ci ci euh, président de la République di euh, son excellence Bassirou Diomaye. nga xam nga euh, déplacement foo munti dem y toujours ce qu'on appelle le moom nga wax mm-hmm. protocole moo jiitu lu ne mm-hmm. gis nga sa njalbeen protocole ah moo taxoon wala mooy tax ñaari nit bu ñu jàkkaarloo par rapport ak euh, contexte ak situation bu ñuy daje ñu war a mën a ak wala dante même bu fekkee ni sax c'est des ennemis jurés tout ça c'est dans l'ordre protocolaire des choses président de la république nag protocole am nag moom c'est un protocole strict président du moom li mu bëgg rek noonu la protocole noonu lay doxalee mm-hmm. protocole bi si lu bari muy décider parce que tamit dafa am lu yaatu loo xam ne moom mooy euh, accompagner le président moo xam si wàllu takk der au grade yi moo xam si wàllu officier yi moo xam si wàllu euh, ministre yi et cetera et cetera bu kum munti doon rek dafa am rôle muy joué protocole laata président di génn mooy xool fu mu war a jaar te président fa lay jaar moo war a xam fu mu toog président dafa foofu la war a toog bu ñu defaree protocole bi mooy ñëw xool sax installation bi tout donc loolu lu ñuy jàng Mm-hmm. dem même boo laa dernière fois maa ngi koy wax fii ma ne même gis nga di ngay gis nit naan la non tey président nu mu toogee président nu mu nu mu waxee alors réalité lu mu dégg la rek nit wax ko moom mu jottali ko si mais boo ko waxoon mu demal la dans le contenu et dans le contenant lié à l'interprétation sémiologique du la ko wax parce que lu ñuy jàng la comme on dit c'est-à-dire que toll nañ benn niveau nag man si lu ma jàpp on ne doit plus puiser on ne doit plus puiser la connaissance dans la pertinence de l'ignorance te loolu foofu la ñu toll si loo xam ne en fait dañ ko war di xalaatee noonu donc déplacement am en Mauritanie loo fa gis ak nu munti mel ko accompagner ku ko accompagner wul lépp c'est souvent un protocole bien établi donc il faut ñu jàppee ko noonu souvent da nga naan kii de beddi nañ ko kii beddi nañ ko gis nga Cheikh Omar wala Kader lu ñu jege jege jege jege président mhm. président bu mooy say pare nañ si daanaka duñu amatuñu accès pour dugg. protocole la. def nañ ko ministre Gole sax à Touba El Malick Ndiaye. donc parce que Diomaye avant candidat Diomaye mais. c'est le protocole c'est le protocole le jour de son élection. Mhm. le jour de son élection. d'accord bi ñu ne résultat ay tendance yi saluer favorable. Mhm. gis nga on am on lui a pas envoyé des capitaines. Mhm. ou des lieutenants. on a envoyé des colonels loolu tam dafa bokk ci protocole par rapport nit ki xam nga yàgg naa wax fii que le général de Gaulle disait on n'humilie jamais quelqu'un qui peut devenir demain président mm-hmm. on n'humilie jamais c'est le général de Gaulle qui le disait on n'humilie jamais quelqu'un qui peut devenir demain président donc euh, da ngay gis rek comme ni ñu koy waxee démb ni muy taxawee ak tey ni muy doxee ñaari nit la parce que quel opposant la opposant boo wëlbatu ku nekk nekk le chef suprême des armées la la la la la la la la ça c'est important merci beaucoup Dormal nga nekkoon itam fu am solo nga ci doon di wax parce que loolu itam lu jara bàyyiloo xel nit yi la parce que ñu bëree bëri dañuy jaawale toujours le président de la république et le le le le militant bi nga xamante ne moom moo nekkoon au sein de de de de la coalition waaw mais comme comme comme comme d'habitude quand le professeur c'est difficile de de de de placer un mot après mais euh, tey attribut bi nga xam ni am na ko ak statut bi nga xam ne am na ko c'est bokkatul. lay la la la la démontrer dès l'instant que euh, dem nañ ba egg sax ci résultat yi kii ñëw gis nga fët fët wala on le prend en sécurité parce que il y va de de la sécurité de tout le Sénégal ensuite du point de vue protocolaire comme tu as dit ci même dans le gouvernement bu ñu nommé ministre yi gis. protocole bi nu muy nu muy toppante ci ci ministère yi. même ci bu ñuy taxawee. Euh, conseil des ministres première photo bi soo ko xoolee sax da ngay gis. kan moo féete à droite ak kan moo féete à sa gauche. di nga gis ña ñoo nekk première ligne ña ñoo taxaw di nga gis ña ñoo nekk ci beneen ligne bi ci ginnaaw. Mhm. donc ça veut dire euh, en fonction même des ministère de souveraineté qu'on occupe. Euh, y a un protocole à respecter et le Sénégal a été un pays boo xamante ni. Euh, dafa am une tradition républicaine c'est-à-dire avant même les indépendances di ñaanal yàlla Bruno jaata nga xamante ni toute sa vie il a travaillé euh, ci ci ENAM la génnee ci administration sénégalaise euh, on a réussi quand même à avoir une bonne administration boo xam ni taxaw na maintenant pour man le plus important mooy attribut bi depuis biñ ko li sama xarit bi wax Tafa solal nañ ko caq bi bi ñu ko solalee caq bi mun ko sëq nag bokkatul ak eh, ki nga xamante ni eh, te ay liggéey bi koy xaar dafa rëy parce que am na ñoo xam ni kër rek lañ leen di mu diis gann mhm. ñu dénk leen ab commune mu diis gann waxtuma laa ki nga xam ni réew lañ la dénk ak ñu nekk bitim réew man nag comme li may wax yàlla bu la joxee yan da lay wut a teeñ pour man ak aspect bi ëpp importance au delà du protocole euh, da ngay xool bu fekkee mu ngi dem ci dëkk boobu ñan la àndal loolu mooy tax nga mën a am lecture ci lan la war a dox donc relation bi am Sénégal ak Mauritanie je je rappelle que ce n'est pas la première fois un président sénégalais élu li ñuy njëkk a privilégié ci diplomatie sénégalaise mooy diplomatie de voisinage d'abord. Mm-hmm. Abdou Diouf euh, Abdoulaye Wade quand il était élu en 2000 premier voyage mi c'est ci pays voisin Macky Sall l'a fait en douze donc tey Mauritanie pourquoi la Mauritanie d'abord. ni ñu nuyu suñu mbokk waa Mauritanie parce que dañ ñuy seetaan am nañ fa suñu mbokk de part et d'autre ñoom it ñu am ko fi mais enjeux yi nga xam ne moom moo ci nekk d'abord les enjeux sécuritaires Ablaye liés sur la question de la sécurité sur la question du du euh, terrorisme euh, sur le pétrole et le gaz nga xamante ni ay ressources la yoo xamante ni am frontière mais am na fu ko bokk ku nekk am nga ci wàll nan lañ koy bokkee nan lañ ci waxtaane nan lañ koy négocier ak aussi suñu ay relation diplomatiques ak sur le plan économique ak ci ci ci côté yu bëri donc pour man euh, yenn ministres yi mu àndal c'est des ministères de souveraineté yoo xam ne jëm nañ ci lool on a vu Sénégal ak Mauritanie am nañ de d'excellents rapport pas comme auparavant parce que récemment Mauritanie may na accordé na Sénégal ay licences pour ay pêcheurs am 500, paraît, 500 dire aussi du point de vue de la diplomatie il a des acquis parce que le président Macky Sall aussi am na loo xamante ni acquis yu mu jot a réussir le plan la diplomatie Euh, su diggante ak Gambie par exemple parce que président Diomaye bu ñu bisee dina dem foofu Yaya Jammeh ni mu ñu fattee woon amee ñu mel ni taab Macky góorgóorlu la ñafe jël armée ba am bongo naan Yaya daa woote guerre ba pare daw mm-hmm. armée sénégalaise dindi ko baro bi nga xam ni moom lañ fa teg mën nañ wax mu am ay relation yu séculaire digganteem ak Macky Sall ba ñu mën a am bridge pont boo wax ne diggante Sénégal ak Gambie mm-hmm. euh, beneen bi soo demee Guinée Bissau Sénégal yàgg na am rapport yooyu. je rappelle que 98 euh, état wu Sénégal dépanné na fi sax Guinée Bissau pour fay ay fonctionnaires am. fii am nañ fi Coupe d'Afrique boo xam ni Sénégal moo fayal euh, Guinée droit de retransmission télé. Euh, parfois ñu jox ay ambulance maye ci période Covid bi loolu yëpp c'était pour bu ñu stabiliser Guinée Bissau mu am démocratie ñu mën a stabiliser Mauritanie ñu mën fa am loolu donc. parce que lañ doon wax le Sénégal est entouré d'un cercle de feu mais vaut mieux avoir de bons rapports avec ses voisins et puis li ma gën a neex du ma ne protocole mais ci ministère bi